ñu ñëwaat ak yéen seen série famille sénégalaise sama gaay yi nag xam nañ ki nga xamante ne moom moo daal di sëriñtu kii di Marlo pour mu joxati nga ne moo nekk euh, Mariétou Argent sama gars yi nag la loolu ñu ñëw analyser si nga xamante ne moo nekk euh, série bi mun nañu nag euh, fan yee passé kii di Marlo doon na fi def benn genre loterie bi nga xamante ne foog mu libéré benn jabar si juróom jabar yi nga xamante ne moom la amoon sama gars yi ñu ñëpp xamoon nañ loterie bi nu mu fa jàllee woon ñu ñëpp xamoon nañ Marlo nu mu sàccee woon boobu boobule loterie ndax suñ fàttalikoo kii di nag Mariétou moo njëkkoon a génn si boobale loterie ba tax na nag daal di nay aveugle loolu ne carrément nekkul kii di Mariétou moom mooy daal di génn ndax Mariétou xalaatul dem si li nga xam te ne moo nekk Kër Marlo ba tax na sama gars yi la lañ defaat muy defaat beneen loterie ngir rek xool kan moo mën a génnaat mais ku dul Mariétou sama gars yi devinez-vous kan moo mujjee génn si boobale loterie kii nii di nag Amina moom moo daal di génn si boobu boobale loterie sama gars yi mun nañu nag loolu métti woon Amina trop ba tax nag mu ngi doon def tous les moyens pour daal dal di nag retourner wat ci galé bi mais mën nañu dafa deuguer ba légui si côté comme nak sama gaay yi benn possibilité kese mo am muy ki di amina dal di euh, serigne touki nga xamante mo nek mar ngir rek euh, marietu li nga xamante ne moom la ko xagn ndax marietu bi doon dafa génn comme mën nañu amina mo ngi si kër gi ba légui mais nak euh, ki di marietu mom mo yakal amina ba nga xamante ne ñu mujj ko fase sama gaay lool rek mën na pousser ki di amina ba mu dal di koy tou ngir rek di ko yakal. ndax xam ni marlo fu mu teg marietu ba tan nak nag foofu la jaar walum Serigne Tou ngir rek di ko yàkkal mais nag sama gars yi est ce yéen yéen ngi si avis boobu noonu est ce que yéen a ngi doon xalaat kii di euh, Amina ndax soo xoolee nag dafa mystère kenn gisatu ko série bi ba tax na nag mun na nekk di def loolu ay manigasam pour nag yàkkal ki nga xam ne moo nekk Mariétou vu que nag moom moo tax ba mu daal di euh, génn si sëyam bi sama gars yi dama leen di wax nag ngeen dóor si commentaire yi ngeen xool ndax am d'accord ngeen ak man wala d'accord leen mais nag euh, c'est sûr à 99 pour cent que kii di Amina moom moo daal di Serigne ki nga xam te ne moo nekk maar les gars dañuy patienter rek xaar nak épisode bi nu muy demee xaar bande annonce bi nu muy demee xool nga xam euh, suñu analyse jaar na yoon wala nag jaaru yoon di leen wax dig daje ba si beneen analise one love les